l'islami Sénégal pour man daa taq suuf taw yi li ko taqal suuf mooy nun ñii fi ne xam ne bala nga am adresse da ngaa tudd sa baay sa adresse balaa am valeur wala moo am assurance nga tudd sa maam lu ci taq noo ko taqal danoo boole bëgg àddina ak bëgg alal ak ñàkk wóolu sunu borom loolu nu mënta ànd ak diine ngor te ginnaaw yàlla moo ne maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم مولوي ني فرفري تلتلي من يالا بوما نيك كيت مرصوب يرمان نيكو دمال تي مودو ما منام لوكو من كوبي امول خانا داغا غمو لولو كون لو تاخنا لو تاخ ديو دي ام نانغام اك لو تاخ ديو دي مل نانغام تيم دوف رك لا تاي وما من دابه في الارض الا على رزقها لوي داغو تي كاسو لو نيك te deret di daw sa yaram sa wërsëg sun borom a ko yor inna allaha yarzuqu man yashaa wa yuhibbu man yashaa yàlla maay séddale wërsëg yi maay séddale maay séddale wërsëg yi cofe kon nan doon ay julit te jéem a sunu maam yeeg sunu baay boo gisee ma ni Cheikh Ahmadou Khadim ginnaaw Seydina Muhammad xaw ma lu mel ne moom néew ma amut jéemu ma koo seet waaye man xaw ko gënal ndax nit koo xam ne que muslim bu mu am jiba mësulaa am tuba joom jiba mësulaa am magasin mësulaa yori ceebi kuñ la tëkkale doomu room dëgg la dafa am benn waay boo xam ne daa dem ci benn tool ya di di yalwaan borom tool bi nag dinaa far mango dama fi bëgg a jeexaat mu ne ko may naa waaye di jeexaat di jeexaat di jeexaat ba am loo xam ne yaakaar bu ko jaayee la mu bëgg a jënd sëy bi dina ko man mu dem jaayi ngàbb xaalis ba dem ci dëkk ba jënd ndimu xotti ci mbubb anjilain wutce kala wutce yere war yemma di asurti ngabal ko bop ndiki ci seigne touba njere bam ne jarum nuy ko ne ko mbakke dama am lu dama ko don indi addi mu ne ko waaw ba nga demé ci tollu jamur ba daat ba nga data daata jeexat nga nga tàggu ko de bobu la lewon bobu la lewon waye nak sikki day dafa nek ci liggey bi mu ne ko mu ne ko dang nga def ay jiba

boo fi seen tee dina ji dina jiital na ko ña ko topp dañoo gëm seen bët waaye xam ne ni defoo nga fi mu man ko mën a solo ba mën a kooku mooy la ca bàyyam am ak la maamam waaye ka fa teew deful dara tous les tarixa Sénégal kon nañ mooy lu bëti ko waxante dëgg te dalu ci diinil islam Sénégal amul islam ab jayee fi am dunde l'islam bu kulug dunde l'islam ku dunde l'islam nekku fi tool bi bu takku lab bi te lam araam ci jamonoy lóotu la senegal góor gu fi du takk lam te lam yëpp kenn ñu mu ko accepté ceenu or xaraam na te fàqan nga gis sëbtaali bi tàpp ginnaaw di jëree di jóge nii itali mbaa bitim réew nga ñu duma ko wax dara ragal ga nga war na ragal yàlla nga jëndi ko ragal kile yaakaar fu mu tegee kon ñun sëriñ lu xew lu na ñu taali bi am ñu problème de ñun ñi leen war a wax dëgg te ñi mun ko lu problème bépp noo ko loolooy li la waral ko ci yor sa jabar du am diine te ba la waxee diine nga naan rasula buñ nga naan sa jabar amul diine ci yéen a bokk toog te doo ko ko wax sa jabar juróomi waxtu lay jàpp nga romb ko ngir kii a daam gaabu tiñ dootoo ko jaamuloo yàlla te jaamu yàlla gi yàlla sant la ko sant doo ko oblige comme fu diine nga jur doom war koo tàggat ci lislaam jàngal ko alquran jàngal ko tawxid tasso man euh, tax usul ak xarud ak bayan ba muy alim war xam lan moy yalla nga kay ko bu fajaree nga sang ko mu set wekkal ko mbuus bëral ko mburo mu dem lu muy jàng nasara nasara bi ci nek lu lu lu xali ben baat bu ñuy jang ci tuba bu jëm ci yàlla amut abc ba sedd ba iya rek lu ci jëm ci l'islam am ndax noonu yonent bi rek wax nga xeer sa dom la fa riri yalla nga na diw ko tuddi jullit nga jur ma doomi jullit waaye yoroo ko ci jullit loolu moo yàq réew mi dëgg fi newut dëgg fi newut ginnaaw bu loolu wee yu bari maa koy dégg ñu di ko commentaire bi ko jëme ci seexul xadim seexul xadim judduwu rek kenn dara nu nit danoo yaru rek ne sonob yar dañ na noonu murid yi nit ku sëgg ay xotti taatam di wax amul kuy wax ci génn ñi rek a fi ginnaaw ay waga waga fi get nanuy wax ni ñep mudu mamun bu nopi kay mel ni man bu noppi fenn ba nak bu nopi señ bi defal nun lo xamne kat daga sunu la mu wéñu ko diko setan ay nonam diko xass di yaqku deram mba ñu diko jëm du ngor ci non nonuy wax ñu serigne fi morfal bu nopi ñu serigne fi xani kenn ko ni señ tuba tabax sëkk auto ba nga war mo la ko jox ñi tok fi so mo leen fataay nga dégg koy ngangale di wal sëñ tuba am tur waliñ ñu do xam nga ni mom la nga ni kenn ngor fekkiwu dëgg la kon nun nun jóg te protéger yoon te wax ak yoon bokk gii nu sëñ Tuubaa defal nu sant Mbàkke suñuy bàyyi dañ daa ganente fii sëñ Basiru di fi ñëw sëñ Fallu di fi ñëw Moodu Xabaan di fi ñëw Moodu May di fi ñëw sëti bannu ball yëpp yëkk ni fi gane si Seexu Bal Seexu Bal di leen gane lan moo war nun duñ ko def nooy ñan lu nun ba duñ ganante duñ demante kenn ku am nga équipe boobu di nga garde di la jafeel di la tëjëk a tijji sëñ bi daa fatu sëñ bi jugagul sëñ bi daa dugg foo dugg ak noo la sëñ bi def ceeb ba dem ñee nga ni tumm doo kenn que lay tëj tëjewu la dara ndax lim tëj du dara sëñ bi rek a fi ne keneen néew génn wax ak nit ñi jëflante ñoom la nu mën a fay sëñ Tuubaa waaye noppee guux say lex tëju ñu di la jafe tëguwu fenn ak suñ bokk gi nu bëgg a yàq ci kenn ko ni jekk tax seeti woo sa morom fu ndaje di funki mel ni ay copine teguñu ko fen te doon dara dara yi newee kene sëñ Tuubaa ko gome nan ko summi te waxante te doxante lii mooy li nga xam ne moom la murid yi war a jóg sëñ Saaliwu du wax nan ko waxal sëñ Murtala du wax nan ko waxal jamono ju nekk la ci xew ji jamono jamonoy wax la dootu jamonoy nopp du jamonoy toog lii mooy li ma gën a ci sunu yoonu mur bii nu bokk ne ndax yu bare bari noo koy dégg dem ba naan tuubaa murid naa nga murid naa nga murid naa nga tuubaa ngi ku bëgg demal àll bu mel ni tuubaa ba fa gaynde ak rab yi nekk sa maam gor ko ay garab ak rab nekk fa ba muy njindi ngay liggéey ba dëkk ba dem doon dese njindi Sénégal gannaaw Dakar Touba fii Sénégal baba buuf tey wallu sëntul Mbàkke du moom Touba baba buuf tey wallu sëntul Mbàkke du moom Daaru Muxti baba buuf tey wallu sëntul Mbàkke du moom Daaru Manaan yow nga ne yanet amoo foo jëm fekk dëkkub jaama nga bokk fa nekk taat bëgg a dëggale dëkk ba mu dëkkee foo ko teg c'est pas normal te la Cheikh Amadou Bamba def Touba boo xoolee dëkk ba lan fay jëkke la fa yàlla boo génn dëkk ba loola ngay mujj seen boo jub dëkk ba loola ngay jëkk seen muy néegub yàlla leen loo man teg baaraam lu suñ to am yàlla moomu kon nan ba wax ji te ba dàq bi